salaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di xamal ne ñi ngi ànd ak yéen fii ci CICES muy bis bi nga xam ne mooy bis bi tubaa ci kanam organisé fii ci CICES mu nekk le 12 juin tey daanaka euh, li waral bis bi nag mooy ngir ñëw dakaar yaatal liggéey bi ci Dakar ndax Dakar yu bëri dañuy jàmbat ne Touba ci kanam dégg nañ ko xam nañ ko waaye proximité bi war a am moo xaw a des moo tax ñu ñëw ngir gën leen a jege leeral leen liggéey bi wanaale leen aussi li nga xam ne si moom la Touba ca kanam di réaliser programme bi nag commencé na depuis ci suba ak léegi fii may wax yéen ñi ngi nii ci exposition bi exposition bi nag mooy base bi nga xam ne moom lañu defoon ngir mbokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi fiy ñëw wala kilifa yi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw wala autorité yi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw wala sax étudiants yi nga xam ne dañuy sàkku xam te bëgg a gëstu ci xam-xamu euh, ci xam wala bëgg gëstu ci Touba ci kanam bu ñëwee fii lañ leen njëkk a jaarale ci exposition bi ñu xool Touba ca kanam xool nan la Touba ca kanam taxawee xool nan la Touba ca kanam di liggéeyee xool nan la Touba ca kanam di dajalee xaalisam ak nan la koy dépensoo kon loolu lu am solo la loolu mooy sababus ñu tabax wala ñu taxawal exposition bi euh, ndax dañuy wax ne Touba ca kanam un modèle de développement communautaire modèle nag bu demee ba nekk modèle ba ñëpp nangu ne lii modèle la dana bëri ay nit ñoo xam ne dañuy bëgg a ñëw jël modèle boobee ngir mën koo doxe ngir ñoom it ñu mën a jëm ca kanam kon ñu jublu ci présentation bi euh, tableau bi ñuy njëkk a gis mooy tableau wu Touba ci kanam liñ ci jublu nag mooy wane Touba ci kanam nan la tabaxoo niñ ko tabaxee niñ ko tabaxee boo xoolee présentation Touba ci kanam Touba ci kanam une association ba ni mu jeex waaye li ci ëpp solo rek wax la ñi nga xam ne ñoo composé wu Touba ci kanam muy ay instance instance dirigeante muy ay commission boo xoolee ci kaw am nañ deux responsables moraux ndax ñaari tànk la ñuy doxe daayira Touba ci kanam doxinu yoonu murit lay doxe waaye nag dañoo nekk ci réew moo xam ne si nii dafa am administration donte kilifa yi ñoom lañ jox suñu lépp liggéey Touba ci kanam lépp ci kilifa yi lay commencé ci ñoom lay delluwaat ku mel ne Serigne Habib Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fada ak ku mel ne Serigne Habibu Serigne Serigne Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Habibu ñoom ñooy kilifa yi gën a mag ci Touba ci kanam moo tax ñoom ñoo tiim ñëpp mooy les responsable moraux amaat nañ comité directeur am na lu tolloog cinquante et personnes ñu ngi ko tànne fu nekk nag ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ngir mooy ñi nga xam ne ñooy daje. lépp lu Touba ci kanam war a waxtaane ñoo koy waxtaane buñ ci waree jël décision ñu jël ko ñu jël ci décision suñ paree am nañ bureau exécutif ci la président bi nekk ak ay vice président ci la secretaire bi nekk ak ay adjoint ak trésorier général am nañ aussi commissaire au compte toll nañ ci ñett am nañ aussi le bureau d'inspection et vérification li nag liñ ci jublu li tax ñu am ay commissaire au compte ba pare kerewaat beneen bureau inspection ak vérification mooy gën a dëgëral renforcer contrôle bi nga xam ne moo war a am ci Touba Ca Kanam ci xaalis bi ni muy duggee ak ni muy génne ak matériel yi nga xam ne ñu ngi koy jënd ngir lépp gën a mën a am fiabilité ndax dañuy wax ne laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam euh, am nañ coordination diaspora am nañ commission administrative commission des finances la commission scientifique et culturelle commission sociale commission réalisation et suivi commission étude et contrôle commission d'environnement, la commission santé, la commission massification, commission de communication, commission logistique et organisation, commission de discipline et programme, la commission féminine. Donc pour gàttal lii mooy commission yi nga xam ne moo composé woo Touba ci kanam gannaaw ba responsable yu jàlli responsable moraux yu jàlle ak comité directeur ak bureau exécutif ku ci nekk nag am na liggéey boo xam ni si buñ ko doon xayma sab liggéey képp képp képp jaroon na ñu kere Touba ci kanam ngir am gi mu am solo ak résultat yi nga xam ne si ni yaa ngi koy joxe kon li mooy présentation globale bu Touba ci kanam euh, buñ paree ñu ñëw ci commission administrative mooy commission bi nga xam ne lépp lu jëm ci administration moom moo koy yor ñooy bind leetar yi ñoo koy recevoir euh, demande yi lépp luñ seq ak administration Sénégal te tam war a dox diggante Touba ci kanam ak administration bi commission bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yor buñ ci paree am nañ commission des finance commission bi ci ëpp solo ci la bokk ndax lépp luy koppari Touba ci kanam ñoom ñoo koy witi ba am ko buñ ko amee ñoo koy denc buñ ko dencee pare ñoo koy génne waat war koo dépensé am gi mu am solo moo tax ñu créer ko ñeenti sous commission am nañ sous commission gestion des fonds ñoom ñooy collecté fonds yi région bu ci nekk danañ xam ñaataa fa jóge dëkk bu ci nekk ci bitim réew danañ xam ñaataa fa jóge weeru wu jot ñu def benn bilan def ko ci vidéo tosaare ko yaakaar naa ñii topp Touba ci kanam ci réseaux sociaux yi yaakaar naa ñi ngi ñi ngi topp vidéo yooyu amaan nañ beneen sous commission carte et membre lépp luy production carte yi ak bolo ñoom ñoo koy def lépp lu jëm ci distribution bi aussi ñoom ñoo koy def amaan nañ sous commission achat lépp lu commission finance ach war a war a war a acheter war a jënd nga xam ne validé nañ ko ba war koo jënd ñoom ñi lañ koy jox ñoom ñooy dem jënd ko amaan nañ sous commission recouvrement ndax dañoo gis ne li ñuy xayma wala li ñuy commandé ci ay bloc ni muy bëree buñ ko distribuer toujours dañuy gis ne am na yu war a ñëw te ñëwut duñ xam nag ndax ñi ko yor dañoo néew doole ci jaay gi wala dañ koo denc fàtte ko bañ koo jaay moo tax sous commission bi ci loolu rek la ñuy liggéey xool képp koo xam jox nañ la carte wala ay bloc boo yàggee ci yow ñu woo bu fekkee danga ko mënta jaay ñi ñëw waxtaane yow dimbale la ci nga jaay ko bu fekkee dem nga nag ba néew ci doole ñu jël ko joxaat ko keneen donc ci gàttal loolu mooy commission des de des des finances lii nag mooy ay rôle am ku xool tableau bi di nga ko ci mën a mën a gis. Euh, commission bi mooy commission environnement ndax xam nañ ne environnement lu am solo la ci dundu doomu aadama moo tax ñu créé ko commission spéciale ci Touba ci kanam boo xoolee nag lii mooy euh, li nga xam mooy mooy ay rôle donc ñii ñoo composé woo commission yi boo xoolee réalisation yi gën a rëy yi commission bi def mooy garab yi nga xam ne jëmbat nañ ko ci diggante Mbàkke ak Touba ci ñaari voies yaakaar naa képp ku dugg ci dëkk bu sell muy Touba yaa ngi ko gis di ko bàyyi xel moo nekk nii. Euh, commission bi mooy commission étude et contrôle ndax Touba ci kanam dañoo gis ne li muy def lépp li ci ëpp ay réalisation lay doon donc li muy réaliser am na ci yoo xam si ni dafa laaj technique walla xam-xam moo tax ñu am commission bi ay borom xam-xam ñoo ci nekk ay ingénieur ci fànn gu ci nekk ngir lépp loo xam si Touba Ca Kanam bëgg na koo def bëgg na koo réaliser ñoom lañ ciy jokkool ñu def étude de projet étudier faisabilité bi xool nan la gëne ñu bind ko def ko ci document jébbal ko Touba ci kanam su ko defee Touba ci kanam doog koo war a réaliser muy commission bu am solo ndax lépp lu ñuy def ci ni àdduna tëdde léegi faaw nga jiital ci xam-xam kon Touba ci kanam lépp lu ñuy def dañuy seet la gën ñu def ko te la gën mënoo koo def te tegoo ko ci ci xam-xam. bu ngeen xoolee commission bi aussi mooy scientifique et culturelle moom it commission bu am solo la mi ngi def ay liggéey yu am solo mi ngi def ay réalisation yu yu am solo. Euh, boo xoolee daara yi ñuy dimbali di leen defal ay mbaar wala di leen defal ay toilette Touba ci kanam mi ngi koy def di ko jaar ci commission bi formation yi nga xam ne ñi ngi koy defal jàngalikat alxuraan yi nga xam ne deuxième promotion bi bi koor gi jàllee rek lañ leen defal benn cérémonie jox leen seen certificat commission bi ñoom ñoo ko chargé woo commission bi amaat na yu muy bëgg a lancé fan yi muy baytu zaka ndax suñ borom moo digle ne képp koo xam ne am nga alal am na loo war a génne ci sa alal jox ko suñ borom suñ borom tudde loolu azaka xuz min amwalihim sadaqa commission bii lañ ko jox ñu ngi ciy liggéey def nañ ci ay études yu sore sore sore yu xóotu xóotu xóot bay jàpp nañ ne balaa yàgg incha allah rabbi danañ ko lancé am na beneen programme bu ñu war a lancé tamit muy ndabal daara nga xam ne dañoo xayma ne daara yi nekk Touba lu mu bëri bari bëri kër yi fa nekk moo ko ëpp Touba ci kanam am programme jënd ay bool yu bëree bëree bëree bëri koñ bu ci nekk ñu dugg fa fu am daara ñu dugg fa ci ñaari kër ba ñetti kër kër gu ci nekk ñu jox la ñaari bool bool boo xam da nga koy tuddee boolub Touba ci kanam heure bu añ jotee wala reer jot nga tibb ci ndab bi dem yóbbu ca daara ji ñu gis ne bu ko Touba ci kanam gépp wala boog bu ko tuubaa gépp nangoo di ko def yaakaar naa daara yi du dutuñ am problème mu añ wala reer wala ndéeg te dana wàññi lu bëree bëree bëree bëri ci yalwaan bi programme boobu waa commission bi ñoom ñoo ngi koy liggéey te xam naa léegi tey mu mu pare bañ war koo lancer incha allah rabbi euh, su ngeen xoolee commission bi aussi mooy commission réalisation euh, Touba ci kanam li muy réaliser bëri na waaye li muy bëri bëri lépp commission bi ñoom ñoo ko yor muy commission bu am solo ndax lépp loo xam si jox nañ ko étude et contrôle su ko étudier ba pare ba ne liikat nangam lañ ko war a defee wala nii lañ koy defee ba joxe délai bi boobaa commission bi lañ koy jox su ko defee ñoom nag ñooy wàcc ci terrain bi commencé di ko réaliser muy université bi nga xam ne si ni huit cent millions la nga xam ne ñi ngi koy def ñi ñoo koy réaliser poste de santé yi ba ci opération defar yoon lépp commission bi ñoom ñoo koy coordonné di xool lu ci mën doon nan lañ koy réaliser muy commission réalisation boo xoolee commission bi aussi mooy santé moom it bokk ci commission yi gën a am solo réalisation yi Touba ci kanam njëkk def te daanaka mooy yi ëpp ci yim def ci commission bi lañ ko jaarale muy santé fii may waxee yow Touba Ca Kanam tabax na six postes de santé benn ba nekk nii boo fa demee ña ngi fay faju ñett yi ci des pare na bañ équipé ko ba pare ubbi ko rek moo ci des ñaar yi ci des ñu ngi ci phase finition bi nga xam ne balaa yàgg danañ ko danañ danañ danañ jébbale caabi yi wala boog dana disponible opérationnel bañ commencé faa liggéey muy commission santé boo xoolee yi mooy ay réalisation gis nga hôpital baa ngi nii poste de santé yi yi ñuy joxe consultation yi ñuy def ba ci Covid bi réalisation yi xam Touba ci kanam defoon na ko te jaaree ko ci commission bi euh, mi ngi noonu. Euh, commission bi aussi boo xoolee mooy commission communication euh, communication moom it commission bu am solo la ndax lépp looy liggéey te di ca am ndam bëgg nga liggéey boobu ñëpp di ko gis. Touba ci kanam dañuy wax ne laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam li ñuy laaj day baax ñu di ko communiquer nit ñi ak nan lañ koy laajee ci commission bi lañ koy jaarale def ko fu ñu xamit la ñuy def muy gestion des fonds ak li ñuy jënd ak li ñuy réaliser lépp ci commission bi lañ koy jaarale ngir gën koo mën a mën a mën a mën a mën a wane fësal ko donc muy commission bu am solo euh, membre commission bi ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo nekk noonu euh, commission bi mooy commission massification massification moom it commission bu am solo ci Touba ci kanam mooy ñi nga xam ne ñooy yaatal liggéey bi di fekki mbokk taalibe ci fi ñu nekk ak luñ sori sori sori ñu fekk leen fa toog ak ñoom waxtaan ñoom expliquer leen liggéey bi ndax ñii rek ñoo am muy koo xam ne yaa ngi dégg Touba ci kanam te xamagoo ko ñu ñëw xamal la ko koo xam ne si ni dégg nga ko xam nga ko waaye da ngaa xamul nan lañ ciy bokke ak nan lañ ciy doxe ak nan lañ ciy liggéeyee ñu ñëw fa fekk si la fa waxtaan ak yow leeral la ko wax la ni Touba ci kanam di doxee nga bokk donc commission bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yor ñoom it ñi ngi def liggéey bu am solo biir réew mi fiñ ci demagut bëreegut tey ñi ngi ni Dakar lii ñuy def Dakar ñi ngi xalaat def ko ci yeneen région yi nga xam ne région bu ci nekk dana am bisu boppam boo xam ne Touba ca kanam gépp dañuy mobiliser wu ñëw fekk si la fa ànd ak massification ngir yaatal fa liggéey ba samp fa ay cellules. Euh, boo xoolee commission bi tamit wala coordination bi mooy jasporaa ndax Touba ci kanam particularité bi mu am mooy boo ko dee xool sax day mel ne ci bitim réew la ëpp doole ci biir réew fu ne am nañ fay membre donc membre yi ñu am ci biti dafa bëri ba nga xam ne réew yi nga xam ne dañ fa am ay représentant aussi dafa bëri ba nga xam ne euh, pour ñu maîtriser ko wala ñu liggéey ñoom liggéey bi ci war dana xaw a jafe moo tax ñu créer coordination tuddee ko coordination diaspora continent bu ci nekk am nga fa ay représentants réew mu ci nekk am nga fa ay représentant nga xam ne ñoom ñooy waxtaan ci seen mbiir di xool liggéey bi nan lañ koy nose ci seen biir nan la ñuy organiser daayira yi foofu nan la ñuy organiser yi foofu ak nan la ñuy jaayante ci ci ci ci ci social bi donc muy commission moom itam bu am solo war na coordination bu bu am solo boo xoolee ñi ko ŋànk ñoo ñoo ñoo nekk nii. Euh, bii nag li muy leeral mooy li nga xam ne moom la Touba Ca Kanam jot a am bañ ko créer ak léegi ndax Touba Kanam ñi ngi ko créer 2016. mais ñi ngi ko lancé officiellement janvier 2017 donc 2017 ba tey tubaa ci kanam mi ngi def ay mi ngi déroulé ay activités am table bi nag loolu lay leeral état financier de 2017 au 30 avril 2021 donc année yi moo nekk ni encaissé yi li nga xam Touba ci kanam encaissé na ko ci année bu ci nekk moo nekk ni décaissement mooy li nga xam ne Touba ci kanam dékkeese na ko ba mu commencé léegi ci année bu ci nekk donc année bu ci nekk ba muy jeex soldu ba la fa nekkoon ci ab soldu moo nekk nii. donc boo xoolee 2017 li ñu encaissé moo nekk nii 284 millions li ñu dékkeese 45 millions yu tegal 2018 aussi moo nekk nii 588 millions yu tegal. donc boo xoolee kon première année 280 millions yu tegal lañ amoon première année. deuxième année ñi nga am cinq cent quatre-vingt-huit millions troisième année muy deux mille dix-neuf ñi nga am neuf cent yu tegal donc yaa ngi gis ne kon Touba Kanam bi mu juddoog léegi lu mu gën a dem di gën a màgg ay chiffres am di gën a yéeg di gën a jëm euh, di gën a jëm kaw. boo xoolee nag deux mille vingt bi nga xam ne ci lañ lancé woon opération defar yoon yi ñi ngi ci am trois milliards moom mu wees nañ ay millions waaye àgg nañ ci milliards boo xoolee liñ ci décaissé deux milliards la yu tegal liñ am lépp. ci avril 2021 nga xam ne bi avril 2021 463 millions ñi ngi ci décaissé 418 millions yu tegal donc toujours damay préférer tudd millions yi rek li ci des ñu ñu bàyyi ko noonu boo xoolee total bi di Touba ci kanam encaissé lépp lépp ba mu sosoo ak léegi moo nekk nii 5 milliards 492 millions 124 mille 352 moom la encaissé li nga xam ne moom la décaissé ba Touba ci kanam sosoo ak léegi 4 milliards 577 millions 566 mille 654 au total mu jox la lool muy solde bi donc mooy table bi nga xam ne état financier bu Touba ci kanam moom la ci leeral table bi nag am gi mu am solo moo tax def nañ ci sax ay brochures ak ay flyers ngir mbooloo mi ku ñëw ñu mën la ko jox nga yóbbaale ko dana la permettre bi Touba ci kanam commencé léegi liñ jot a am liñ jot a dépensé ak solde total bi ci gàttal daal lii moo nekkoon exposition bi nga xam ne si ñu ngi koy organiser fii ngir wane liggéey Touba ci kanam wane li nga xam ne moom la Touba ci kanam indi comme model parce que model de développement communautaire nekku ne laaj xaalis ak joxe ko waaye bokk na ci li gën a am solo te Touba ci kanam di ko jàngale aussi mooy leeral gi nekk ci biir transparence gi nekk ci biir. Euh, loolu nag ab soññee la ngir képp koo xam ne si ni yaa ngi laaj ci alalu mbooloo mi war nga fexe ba mbooloo mi ñoom it di ci teg seen bët di xool. war ngay fexe ba ñoom it luñ xool mën koo gis damay wax ne nit alalam da koo jege ci xolam doomu aadama fépp fu muy dugal alalam faaw mu teg bëtam di xool ñun Touba ci kanam nag dañuy fexe ba képp ku teg sa bët di xool bis bu set da gis loo xam ne si da lay gën a neex bis bu set da gis loo xam ne si dafa lay gën a convaincre kon ci gàttal ñi ngi waat nuyu ñëpp di ziare waat ñëpp di leen wax ne programme bi day continuer fii ba 19 heures incha allah rabbi exposition bi bu paree danañ dem xewlu ji añ bu ñu añee pare dugg ci salle mag bi daal di commencé cérémonie bi ak conférence bi